Papa Ndiouga génnee na mère Oumy kër ga gannaaw bi mu fa nekkee di teg fa lu méttee métti loolu lañ gis ci bande annonce épisode 57 waaye laataa ñuy gën a ñëw ci chronique bi dañuy dem ci page publicitaire bi te ñëwaat. da nga am jafe-jafe sa wàllu àdduna cat daf laa sonal wala lamiñ dawal seeti Serigne Salihou Mbacké bi sët ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké seet gu leer nañ li si xaar. wax la sa ëllëg ba nga xam ne gis na la dawal seeti sëriñ Saalihu Mbàkke fasu mbig yi boo xamante ne koo xamante ne sa dafa nooy la gaaw a daanu booy say jigéen di gaaw a àgg dawal seeti ko ndaxte fas koogu noonu maamam ju baax gi di sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke moom moo ko joxoon mook ko baaxe woon jigéen goo xamante ne dangaa taw am doom dawal seeti ki nga xamante ne mooy eh, Serigne Saliou Mbacké koo xamante ne da ngay lijjanti ay kayit mu jafe muy visa nga bëgg a dem bitim réew wala nga nekk bitim réew taw a ñibbisi demal seeti Serigne Saliou Mbacké ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro bi 77 385 92 00 wala 78 124 20 45 ak Serigne Saliou Mbacké aju yëpp a faju bande annonce épisode cinquante sept bu Babel révélé nañu ay secret yu bari ñu commencé ko ak Khalil bi nga xamante ne ma ngay wéy di wan mbëggeelam ki nga xamante ne mooy faa ñu gis complicité ci seen couple waaye bëggante gu am solo macha allah ba tax kenn mënu leen a tàqale à chaque fois Khalil day jël ay responsabilités ci kanamu famille waaye père Ndiouga ndax dafa génne ki nga xamante ne mooy maire ummi kër gi loolu mooy question bu mag bi laaj ndaxte ñi ngi gis ci bande annonce bi mu naan jëndal fii kan lay waxal loolu maa ngi ne xaar ci commentaire yi ki nga xamante ne mooy Khady ak ki nga xamante ne mooy Ousseynou du mbuju sëy sëy bi du mbuju am li ko waral mooy ki nga xamante ne mooy Tidiane mbuju na jël ay responsabilités am avoué que ne dafa bëgg Khady ci kanamu Ousseynou. ak Aziz di rakk ki nga xamante ne mooy euh, Ousseynou ndax Aziz ak Ousseynou dañ bàyyi ki nga xamante ne mooy Khady ak ki nga xamante ne mooy Tidiane euh, seen sëy neex loolu yaakaaruma ko je pense que ne dinañ mettre les baton dans les roues ci diggante ki nga xamante ne mooy Khady ak ki nga xamante ne mooy Tidiane Khalil ma ngay wëy euh, du moins Sadikh ma ngay wëy di am métit ci li ko jooja def mais également ma ngay dànkaafu Awa Seex ne doo gisanteeg benn góor ñu leen leen indi loolu ween di like di commenter jaa ngeen jëf